simile waaw lan moo tax ba Macky Sall kon mënta dem dëkk ca pale bé birima ci tribune yéen kay ne am na ñenn ñuy xam leen ne wàllum xar fa foofa di ay mbirum xoo moo tax kon ba Macky Sall kat bëggul dem kon dëkk ca palem bé waaye ak lu ca mënta xew ah mooy bërëb bu mag bé sa haut symbole de la république waaw ñàkk na daal maanaam ku fa dëkk te loolee nekk loo xam ne na kon lu rafet la ci derog senegal gii que Macky Sall kon ci suñuy mbir mën na caa indi daal am ñam bu dee moom ci boppam kon am ñamam da caa am daal lu koy yëngal kon di ko tourmenté Farba Senghor ci tribune yéen kaay ne Macky Sall ci boppam moo wóoluwul boppam waaw parce que bu Abu Abel Thiam bëggee wax ne bale bee dañ ko doon defaraat ak yooyu yee c'est faux c'est pas loolee amul Abu Abel Thiam ne lan moo tax kon ba ñu bëgg a jox ab deadline ne Macky Sall kon ci date wii daa war a dem kon ca pale ba te loolee kon binduñ ko ci kayit du lu wax Félix Sall ci yéen kaay gi ne ah moo tax kon mu des ca këram gee ca Mermoz mooy ne gars yi nga xam ne kon ñoo koy ñaanal di ay sëriñam di ay sorcièm ay jinnéem nga xam ne dañ leen a jëlee fu ne rawatina kon ca Fatick gee ñoo ko wax ne ko toogal ñu sulli ya nga xam ne kon moom la Abdoulaye Wade kon suuloon ca pale bële i maa la ko wax te bu ñu sukkandikoo nag ci ay xabaar ma ne la garab ya nga xam ne ñoo nekk ca pale ba garab ya les arbres waaw ca boppam kon ña ngi koy làmb ka fuyeeg lu ne ñu nañ ne Abdoulaye Wade kon ku gëm ay mbirum xar fa fuufa la di ay mbirum sëriñ fa place waaw laas a Mamadou Racine Sy ca corridor ba ah lijjanti na fa ay mbiram de maa la wax li le Mamadou Racine Sy ne hôtel bii King Fahd Palace Méridien président woon waaw ne daanaka ñaar fukki atu yàlla mi ngi ci loxol ñi nga xam ne bitim réew la ñu fekk baax waaye janvier ba léegi mi ngi ci loxol sénégalais yi le service est magnifique et impeccable nañu yore kër ga rafet na jekk na lool kon nag man Racine Sy xam leen nañ leen gëm suñu bopp ñun sénégalais yi waruñoo am kon benn complexe ci kanamu ñi nga xam ne kon waa bitim réew gi ne waaye la doy waar kon ci discours Racine si googe mooy ne wax na ba teeral waaw tuddul benn yoon kontour Youssou Ndour demoon na Youssou Ndour kat mooy kilifaam di ministre am la sabab lu nu mel kat mooy ministre du tourisme Youssou Ndour daa dikk kat ngir déjjati kon Racine si ca place boobee ca ay corridor ja corridor joo ca tribune kaay nee na groupe des médias moom la jokkoon ko bu ki ëpp yërmande ci askan wi ci jàppal ma jàpp gi action sociale maa la wax lii dimbali askan wi ca jamono joo na doo bukki ba a ci biir Bokk Yaakaar loolee kon neexul benn yoon maire de Dakar Khalifa Sall daal la mu jàpp mooy ngir moytu daal ab supp kànja dal leen ku ci ne da ngaa war a delluwaat sa parti dundal ko dekkalaat ko organiser waat ko maire de Dakar ne dundinu politique bi ci boppam kon moo war na ne tàmbaliwaat bu ñu bañee la dal mali gee daal ñuy dal ak jéem a waxtaan gu nooy goo xam ne ku ci nekk da bëgg kon sa wàll ca gato ba te kenn nag kon du dégg askan wi te bu loolee amee ne ku ci ne doo gis lay dikk kon benn jour ba mbir mi jekki-jekki rek ne bëret metteel am suñ kaw Khalifa Sall ne Macky Sall ci boppam moo soxlaatul kon majorité bi di ko fat yéene kaay am na bi parti socialiste de ah waaw waaw parce fal gi nga xam ne kon fal nañ ko Ousmane Tanor Dieng ministre d'État waaw intéressé na kon socialiste yi nekk ca Europe Khalifa Sall ne mosuma yëg fali nuk Ousmane Tanor Dieng jay parti parti wu Demba Dia wax nañu de tribune yéene kaay ne ca la wax kay mooy gouvernement bi nga xam ne gars dañu koo nar a yokk parti wu rog ma lax Demba Dia naqarlu nañu tatoon ma làmbatu gi nga xam ni kon moom la kilifay nekkee moom la nekkee woon maanaam la jël teg ko nee léegi daal gars ci li ñuy dund mooy ay kàcca sos rek ñoom ci li d'état waxuñu dëgg la ñu waxaatul dëgg mooy ministre APR yi laas ne Abou Abel Thiam daal la mu wax du dëgg de ah non non bu bëggee wax ne ministre APR yi nekk ci gouvernement bi juróom-ñetti ministre lañ te Macky Sall moo ko njëkk a wax ne huit ministre la APR am loolee c'est pas vrai du dëgg parce que maître Alioune Badara Cissé ministre la ministre Diaw ministre APR la docteur Augustin Tine ministre APR la Benoît Sambou ministre APR la Mor Ngom ministre la Ali Koto Ndiaye ministre APR la même Aminata Touré la fukki ministre ngo teew boolee goo ca Seydou Gueye secrétaire général du gouvernement bi nga xam ne rang de ministre la am Aly Ngouille Ndiaye ak Eva Marie Coll ñoom ñaar nag même bu dee duñu APR it jege nañu ko kon nag na gars yi di dakkal di wax ne APR juróom-ñetti ministre kese la ñu am ci gouvernement Abdoul Mbaye bi fukki ministre ak ñett a jege dëgg cay APR laas nee na cadre yi wax nañ de ñoom kàngamu PDS yoo jee nee nañ ñoom li leen gën fi mu nekk ni soxal mooy jéem puus gouvernement wu Macky Sall bii ba lépp lu ñu diggee woon ko ñu koy def di wax dëgg ah waaw waaw parce que amul benn entreprise boo xam ne mi mi di dox guddiñ toll nii dara doxul benn entreprise daal moo fi dox mooy fondation servir le Sénégal bu Marème Faye i maa la wax lée kàngamu a auditer ci nu mu gën a gaawee fondation bii nga xam réew Macky Sall bee ko jiite Macky Sall moo mee ma nga woon ca kër baarataal di ko jaale bu ñu sukkandikoo ci le populaire Macky Sall sàkku na ci baarataal moo bu mu yóbbu nguurug Sénégal gi ci yoon ci coowal Jean Lefebvre Sénégal Macky Sall ne danaa jokkoon ab ndigal ministre des finances ngir mu daal kon sëgg ci mbirum Jean Lefebvre Sénégal parce que yéen mouvement yamale laaju leen dara waxoo leen dara te loolee nag mooy ngor mooy dignité dem naa ca Abbas Ndoy mi président écrifas nee na ñun daal fi mu nekk nii taxaw nañu ngir suul lépp loo xam ni ay coow la woon kon yu amoon suñu biir waaye képp koo xam ne tam respecté woo règle yi ci écrifas danañu yëkkati ay daan lal ko sa ndodd sanctionné la kañu sanctionné kay mooy médecin ba ca poste mais ah docteur poste ba def na giraawaali libération yéene kay ne ab giraawaali di scandale sexuel la ilaha illallah moo am ci poste bii poste ah maa la ko wax parce que médecin ba seen docteur ba teg nañu ko loxo àjjuma ba léegi te moo ngi doon waat ngir dem kon ca màkka allahu la ñuy tuumaal nag médecin ba di docteur wax mooy oyof geño rek oyof ceinture lool waa jile gëdd fa ab soxna bëggoon koo def ko naka su dul noo nee harcèlement sexuel la ilaha illallah ah maa la ko wax te soxna soosee kat jabaru benn kàngam buy liggéey bi post la cadre poste ah <laughs> maa la wax lii xam nga këru liggéeykaay yi dañuy am seen médecin seen docteur sa doom bu feebaree nga yóbbu fa sa jabar bu feebaree nga yóbbu fa waaw waa ji daal jabar ji la jël yóbbu ko kon seen médecin boobee ca poste waa ji di yëkkataan ko ndaw saak maanaam di ko raay raay sax ay awrawu ndaw sax ilaha illallah ah maa la wax lii médecin ba nag fi mu nekk nii teg nañu ko loxo àjjuma ba léegi tey jii la ñu koy jébbal procureur de la république la ilaha illallah alaaji kaw teef maa la daan wax alaaji tëjal mais tey dama naan la alaaji tëjal lii